képp koo xam ne war naa laa soññ maa lay soññ nañ teel a dem ci dëgg ndax dëgg mooy mujj dëgg mooy njëkkoon sax te mooy mujj te loolu mooy am na daaj yoo xam ne daaji dëgg la jàng mi itam jàngkat la jiitu ci moom mooy na jàng ba xam araf bu noppee ci araf mu xool yenn daaj la war a daaj ndax xasida yi du daaj bu la neex nga daaj ko dangay gis koo xam ne day daanaka du wuuteeg ku yor sax sabar rek di tëgg ba asamaan set loolu moom bu soobee yàlla dana fi jóg moom day xew ku ku ci yaakaar dara itam da nga am déception ndax loolu dana xew ku déglu xale yi nga xam ne ñi ngi jàng léegi ay kuréel di ko mawlut di jël suñu daaj yi di ko mawlut nga xam ne lañ ci ñiñ ci daan booleeku néew ñoom booleetuñ ko ci te daaj bi lañuy indi ku dégg loolu rek war a xam ne am na fu fu njàng mi jëm man nag loolu moo ma jàpp moo nekk ci sama bopp bii man ma bëgg man ci ñi ma ko seqal ak ñi ma ko sañal ñu teel a wuti foofu fexe ba génn benn benn style boo xamante ne bii ne daal moom moom kenn duñ ci jiitu daal ci sellal njàng mi ak gën koo xamaat ak gën a xam araf yi mesurer daaj yi mesurer aw bi lu ci ne ñu xam nañ ko war a defee ba ci toogin bi yooyu yëpp daal dafa dafa mat man daal loolu daal moo ma gën a taxa bëgg sacrifié wu taxawal daara lii daal mooy sama xememteef mooy sama mébét lii nga wax nag moom ndaw moom li wérte mooy na jàng bu jàngee ba noppi na jàngi métier mbaa mu commerce ji ndax li wérte moom mooy nii nga ko waxe yii xew nii sampul kër yor soxna yoru njaboot war leen a dundal bëgg koo aj ci foo toll foo déggu xew dem fa madda wala nga gësëm ñu jox la fa dara nga bëgg cee yor sa kër loolu barke moo ci dul wàcc bu mën a yor kër barke ci li muy wàcc mooy kiy jàng xasida te di ko teg ci yoon te di ko sell te gëm ko te am ci pas-pas kooku la xasida yi jox barke buy tax mu mën a samp kër mën a jariñ njabootam te yëf yi nag lu ci li bari bari barke rek moo ci am solo kon nag maa ngi digal ku ma ko war a digal ku ne ku ci am métier fonk ko ba ba ngay dem ba métier mi domine njàng mi domine métier mi bu boobaa xëy na di ko mën a bàyyi continuer njàng mi waaye boo àggagul foofu moom nanga fonk sa métier man day jóge naa ci machine bi 1994 ñu ñu invité ma réew mu toll ne France ma dem jàngi fa ñëwaat toogaat ci machine bi te kon xanaa bu ma doon bu ma doon bu ma doon doy la ma ne man dem naa France ba ma ñëwee may ngand ngandu la ne man France laa demoon te teewut bi ma ñëwee damaa nekkaat ci machine bi bi ma demee ba nga xamante ne bi ne mënatuma boole programme yi ak machine bi ci laa bàyyi machine bi te ba fii may wax ak yow machine baa ngi sama bopp saa su ne damay xalaat jënd machine bàyyi ko ci kër gi ndax dana am ay turki dara ak ay xeet yu may bëgg di sol yoo xam ne kenn doyu ma ci fi ne bu ma sañoon maa koy ñëwal sama bopp ndax bëgg gi ma bëgg sama métier rek waaye incha allah njàng mi ma gis moom léegi pacc xoo xaalis bi ñu dëgmal nga xam ne kenn kuy jàng jàngate ngir yàlla amul booy jàng sax nit di baatare far yaa bàyyi nga la ngay jàng yaa ngay xool kooka dala yàqal la ngay def loolu moom dana xewi moom yooyu xewi nag ku yebu teel ca jóg yàlla yàlla may dégg ak topp